ziar bu baakha di am mbekté di euh, euh, wéyal liggéey bi nga xamné door nañu ko ci bis bi nga xamné moy bisu Cheikh Abdoulaye Lahat ñu nekk kër Serigne Assis Fall ti kanam Serigne Mamour Fall euh, ñuy amal li nga xamné moy magaluk Cheikh Abdoulaye Lahat ci kanam mbokku talibé yi njabor gi xarit yek am di yek ko kolëre yi kon sëñ bi xamna dañ lay bàyyi rek ngeen yo ak mbokk yi nga xam ñu ngi sétane euh su ko defee ñu ci bëss bi nga koy amal fi ci palen salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne ñi ñuy teewlu ñu ngi nuyu ñëpp te leen siyaare bu baax di jotal suñu nuyoo ci kàddu yi sëriñ bi euh, sëñ Mor Talla Fall mu soxna Astou Gawane Mbacke mu Cheikh Abdoulaye Mbacke Khadim Rasoul mi nga xam ne mooy wéyjuru sëriñ Cheikh Mor Talla nga xam ne moom lañ toog mu nekk nii ci suñu ndeyjoor nga xam ne ginnaaw yàlla moo fi dajalee nit ñi euh, di fàttaliku Jambari l'islam jooju nga xamne moy Cheikh Abdou Lahad euh way juróom it ko taxawu fi comme ni mu koy taxawoo masaana xëy mbokki taalibe bi yëpp daje fi euh, jital alquran tek ci ay xasida tek sikrula def ay berne fanane ko bu beut set soxna su gawan mbake mom ko dan taxawu fi andon ko kilifam serigne Abdou isfal mom Cheikh Mortala bi yalla ñu wuy ji suñu borom ñom ñaar ñëpp sëriñ Mor Talla Mbaal mi nga xam ne moom la leen yàlla boole moom itam mu koy taxawu fii comme ni ko wayjur yi daan taxawoo waaw ñi ngi ñaan saa borom mu yàgg lool nag te lépp luñ fi ñaan suñ boroom nangu ko jotal yiw yi Cheikh laa Mbacke mi nga xam ne mooy boroom bis bi waaw loolu daal moo doonoon suñu nuyoo. waaw waaw bis bi liñ koy amalee mbokki taalibe yëpp danañ fi daje. ndax euh, sëñ Mor Talla Fall da doon ñaari cieur liñ naan fetaluk ñaari ngemign euh, sëriñ Abdoulaye Mbacke day mamam euh, Cheikh ibrahim Fall di mamam sëñ Abdoulaye Fall Cheikh Mor Talla Cheikh Ibra sohna su gawan sëñ abdoulat Cheikhul Khadim kon delu wat ci sëriñ bi rek mbokki taalibe yep buñ xeyé dinañ fi dajé moy ñi nga xamné seen buntu ci kër Cheikh ibrahim Fall la nek surtout wëllëre yëpp dajee fi ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Ibrahima ñëpp ñu comme ni ma la ko waxee léegi ñu jàng fi ay kaamil yendoo jàng xasaa xasaayit def ay berne bu 18 jotee ñu def cérémonie bi bu guddee ñu génn ci pénc ma dem ci baas ba fanaane faa def sikkar ba bët set incha allah noonu daal la ñuy taxawee bis ba at mu jot waaw. Abdou Salam waaw waaw